yaay yaa ëmb sa far. ok bon mais oustaz Iran est nampal saw far dagan na. nampal sa doom daal laa jàng man nampali far jànguma ko. mais ñun gis nañ jigéen juy nampal faram. yaay yaa ëmb sa far yu wasin ko ba mu nekkum ponkal nobaal la kay nga di ko nampal kay acca rek. oustaz kon ñu dogati aaya rek. wal waalidaatu yurdi'na awlaaduhunna hawlayni kaamilayni liman araada an yutimma radaata. waaw te doo ñu yu aaya bi. yàlla daal nee na yaay yi nañu nampal doomi kon comme que lu góor yi ne léegi ñu leen di nàmpal nag. jigéen ji nàmpal góor góor uuf ko mu seex say wen di kapaj kapaj yi mel ni kuy bëgg a dee man ne loolu xaw ma ko fenn. <laughs> mais oustaz man mi nga xamante ni dama yar sama biberon di ci namp xanaa nag ayu. man daal yaay na nàmpal doom laa jàng ci alxuraan. waaw ah, oustaz nag ayul nag. nàmpal sa doom daal laa jàng man nàmpali far jàngu ma ko. waaw waaw ayul li <laughs>